الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للسؤال ننجسين جتايق نفر رجل التجويدي لعلم التجويد بنيت دورت القرآن ترتيلا آه، أكسن بك أبو طه عندكوا أمي إن شاء الله تي سنسيت إنترنت أهل القرآن بيكم ولا كنت يوتيوب أهل القرآن ولا لامزون دي كورا سنجد هاي بيباسي نيو تخيوون ولا نكون تي بنتو بأحكام النون ساكن التنوين تي آه، آه، تي ربيتو دو تحفظ الأطفال جاتون تخيو تي بيت بنجك بي نون غو سكون اك تنوين امنا جوروم بن اتي ولا نينت اتي كون ني دون فريم فانتي لان مو ديفرانسي ديغنت نون غو سكون اك تنوين ليرالون نانكو سي جوتاي بي ويس ا كون تاي ني نيو ان شاء الله بور تامبلي تود نك اتي يوي بروم تيري شيخ سليمان الجمزر رحمه الله منف الاول الاظهار قبل احرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي hamzun fa haa'un thumma aynun haa'u muhmalataani thumma ghaynun xaa'u mu ni fal awal yaani alxukmu al awal min ahkaam an nuuni saakina wa tanwiin atte bu njëkk bi ci attey nuun gu sukoon ak ñaari maska al idhaar mooy idhaar al idhaar nag buñ ko waxee ci wolof mooy feeñal fesal ñu gis ne kon nuun gu sukoone wala mu tanwin benn ci xaraf yi ñuy waa jox topp ci day yor atab idhaar dañ koy wax mu leer naññ bu dee nun gu gi la tanwin gi tamit nun gu sukkoonam googu nekk ci biiram dañ koy leeral ba mu leer naññ xaraf yooyu yi na juróom benn xaraf la te mooy xaraf yi dëkk ci put euh, alxuruf alhijaiya di xaraf arab yi xaraf yi ijji yi dañoo am ay génn waay ay dëkkuwaay dëkkuwaay yooyu juróomi dëkkuwaay yu mag la euh, li ñuy tuddee aljawf benn la ci xalq benn la ci ñetteel bi di allisaan ñeenteel bi di alshafataan euh, juróomeel bi di alxaysuum euh, yooyu ay génnuwaay yu mag lañ ànd ak ne am na ci yoo xamante ni dafa am ay génnuwaay fara farciya yu ndaw ci biiram waaye xalq di put moom dafa am xaraf yu fa dëkk di juróom benn juróom benn xaraf yooyu dëkk ci put nee na juróom benn yëpp ñooy xuruful izhaar ci buntub nuun gu sukuun ak tanwiin moo tax mu ni fal awwalul izhaaru qabla axrufi lil xalqi sittin ruttibat fal taarifi atte bu njëkk mooy izhaar te ñu ngi koy defe bu fekkee ne nuun gu sukuun wala tanwiin jiitu juróom benn xaraf yi dëkk ci put xaraf yooyu na la ko wax ni mu toftaloo maanaam nii mu la koy waxee noonu la xaraf yi toftaloo ci ak dëkk ba muy njëkk a wax moo dëkk fi gën a sori ci put ba ca topp topp ca ba ca topp topp ca ba put jeex ba dëkkuwaay put yi jeex ñu leeral ni put ñetti dëkkuwaay la am ci biiram am na lu ñu tudde aqsal xalq mooy fa gën a sori ca put di fa gën a jige dënn wasatal xalq di digg put ak adanal xalq di fi gën a jige ci put di fi gën a jige làmmeñ fu ci nekk ñaari xarafa fa dëkk ci ñet dekk way yoy buñ ko bolé muy juróom ben xaraf kon juróom ben xaraf yoy mom la lim ci baytub ñaarel bi nee hamzun fa haun thumma aynun haau hamzun hamza fa top topp al haa thumma aynun topp xarfu ayn haau ak xarfu haa muhmalataani baatu muhmalataani mooy ñaari mujjee lim mooy ya amul tomb ndax bu dee ayin am na gum nurool bindin tey am tomb ca kaw mooy xëyin bu dee xaa moom am na bum nurool mbindin am tomb ca kaw di xaa waaye mu ni ñaari yim lim ci ginnaaw muhmalataani mooy ñaari yu ñu boyal yi nga xam ni eh, kenn deful dara ci seen kaw kenn tomb leen ñaar yoo ca jublo ñaaree ci des nag doog ñëw ndax ci lañ bokk moo tax mu ne summa xaynun xaa u topp xayin ak xaa juróom benn xaraf yooyu saa bu fekkee ni nun gu sukun ñëw na benn ci xaraf yooyu topp ci nuun gi dañ koy feeñal cim njàngin saa boo fekkee ni wiin ñëw na benn ci xaraf yooy topp ci tanwin gi dañ koy feeñal cim njàngin ñu joxe ci ay misaal xaraf bu njëkk mooy hamzun hamza hamza nag mooy li wolof mag ñi daan wax tif liif gu bopp <laughs> moo xam ci alif lañ ko teg wala ci mbindin ci yaa lañ ko teg wala ci kaw waaw lañ ko teg mooy liif gu ñuy jàng rek ci gàttal liif gu ñuy jàng ndax dafa am hamzatu qataa ak hamzatu wasl hamzatu qata des koy jàng hamzatu wasl deesu ko jàng kon gi ñuy jàng euh, moom lañ ci jublu moom bu fekkee ni ñëw na ci alquran topp ci nuun ngu sukuun nuun gu sukuun googi dañ koy feeñal moo xam moo xam dafa ñëw ci benn baat wala dafa ñëw ci ñaari baat dafa ñëw ci benn baat lu ma jublu mooy benn baat boo xam ne nuun gi ci la nekk hamza gi topp ci wala xuruf yëpp sax ma ma ma ma ma boole leen ko wala nuun gi sukkoon ñëw jeexal baat hamza gi door baat wala benn ci xaraf yooyu bu mu ci doon rek misaal yi may waaj joxe mën nañ ko ci fekk dañuy ñëw ci alquran fekk ci misaal yan aw na yan aw na yan aw na dañuy gis ni ginnaaw nuun gu sukun gi hamza moo ñëw gu fatxa ak nu mën a def rek atta bi lay yore waaye fii dafee fatxa kon nuun googu dañ koy feeñal ba mu feeñ cim njàng dañ koy jàng-njàng mu leer nañ yan sukun gi leer ñu doog a àgg ca hamza ga kadalika bu dee tanwiin it moom bu fekkee ni ñëw na hamza topp ci dañuy feeñal tanwin gi comme kullun amana kullun amana lun day leer naññi nga doog a àgg ca hamza ca topp wala lu mel ni rasulun amin rasulun amin tanwinu lam gi day leer nga doog a àgg ca baat ba ca topp ndax lan mooy xaraf wii topp ci tanwin gi wala xaraf wii topp ci nun gu sukun gi xarafu idhaar la ci buntub nunu sakina wa tanwin ñaareel xaraf bi mooy haa haa moom mën nañ ci joxe misaal lu mel ni yanhawna yanhawna wala minhum ñaar baat yëpp da gis ni nuun moo sukun haa topp ci atteb nuun googu idhaar lay dañ koy feeñal kadalika bu dee tanwin lu mel ni minhaad loolu ba tey la maa ngi jégalu tanwin lu mel ni ala shafa jurufin haar haar fin googu it maam ñaari maske yi nekk ci faa gi di tanwinu fin day leer naññ lu tax xaraf ci topp haala te haa mi ngi bokk ci euh, xaraf ci buntum nuunu saakina tanwin kadalika bu dee ayin tamit noonu man nañ jox misaal lu mel ni an'amta an'amta wala lu mel ni min amal min amal ñaari baat da gis ni nuun gi dafa feeñ lu tax xarafu al ayin moo ci topp te ayin moom mi ngi bokk ci arafi feeñal ci buntub nuun gu sukun ak tanwin kadalika lu mel ni wa yanxituuna min aljibaal wa yanxituuna yan nun sukun xituuna xaa topp nun googu dañ koy feeñal wala lu mel ni min xasana min xasana min day leer naññ ndax xaa moo ci topp kadalika bu dee tanwin xaa topp ci tamit noonu la comme alimun xakim alimun tanwiinu miim gi day feeñ dañ koy izhaar lu tax xaa moo ci topp te xaa dafa bokk ci xuruufu al izhaar ci buntub nunu sakina wa tanwin kadalika bu dee xayin kom fa sa yungiduuna ilayk fa sa yungiduuna fa sa yungiduuna dañuy gis ni nuun sukun na xayin topp ci atte bi mooy izhaar ko ndax ayin xayin da cee bokk dafa bokk ci xuruful izhaar kadalika lu mel ni min xil min xil min noon gu sukkoon gi xi xayin moo ci topp atte bi mooy izhaar bu doon tanwin tamit kadalik maanaam bu doon tanwin moo jiitu xayin gi tanwin gi dañ koy izhaar comme afuwun xafuur afuwun xafuur tanwin waaw gi day leer naññ ndax xayin moo ci topp kadalika bu dee alxaa xarful xaa tamit noonu bu fekkee ni dafa topp ci nuun dañuy izhaar nuun gi bu toppee ci tamit dañ koy izhaar ay misaalam lu mel ni wal munxaniqatu wala min xilaaf bu dee tanwin comme alimun xabir kon dañuy gis ni hamza ha ayn xaa ñoom juróom benn ñii fu ñu toppee ci nuun gu sukuun nuun nga àtteem mooy feeñal izhaar fu ñu toppee ci tanwin ci alquran tanwin googee àtteem mooy izhaar ndax ñoom juróom benn xaraf yii di xaraf yi put ñooy xuruful izhaar ci baabu nuun as-saakina wa tanwin borom tere bi continuer ci àtte bi ci topp من والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت والثاني يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين أت بنيار البتي أتى نون سكون التنوين إدغام نعم إدغام إدغام نك موي جل أو حرف دوغل كوتي حرف واتا كان مم ني موجو وين حرف وشده لول ما إدغام ci ci ci eh, al maana al istilaahi yaani al wa damj boo jëlee mbir dugal ko ci mbir rek yaani adgamtahu fii waaye bu de ci ilmu tajwid da <coughs> jël aw xaraf dugal ko ci moroomu xarafam mu nekk ci kanamam ñoom ñaar ñooñu mujj nekk wenn xarafu shadda loolu yi nga def moo tudd al nuun gu sukun ak tanwin dañuy am atteb idgham kañ mu ni bi sittatin yaani ci juróom benn xaraf ba tey yoo xam ni atat ñëw nañ ñoom juróom benn xaraf yooyu fii ci baatu yarmaluuna benn xaw seen yarmaluuna baatu yarmaluuna buñ ko wàññee ay xarafam dañuy gis ne juróom la yaa ra miim laam waaw Euh, nuun juróom-benn xaraf yooyu moo composé baatu yarmaluna kon juróom-benn yooyu yi ñooy xuruful idgham ci buntub nuunu saakini wa tanwin saa boo fekkee ni am nañ nuun ci alquran benn ci juróom-benn xaraf yooyu topp ci atteb nuun gi mooy idgham dañ koy dugal ci xaraf woowo ca topp saa boo fekkee ni am nga tanwin ci alquran benn ci juróom benn xaraf yar mu na topp ci atteb tanwin gi mooy idgham da ngay jël nun gi ci tanwin gi dugal ko ci benn ci juróom benn xaraf yii kon atteb ñaareel mooy idgham kañ lañuy ñuy idgham nun gu su ko nag mooy bu ci benn ci xarafi yar malu na toppe mu def nag ak leeral wala ak firim fànce ndax xaraf yooyu yi ñooy xuruful idgham naam waaye dañoo séddale koo ci ñaari wàll مرحمون لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علبا لكنها وينك مم حروف يويد حروف الإدغام قسمان دفسد لك وشنعر خاج قسم خاج بوخمن يدغما فيه بغنة دينتي إدغام نون ولا إدغام تتنوين بغنة وي مؤندق غنة غنة نك ab son la boo xam ne kiy jàng léeg dina ko boole ci njàng mi te muy génnee ca fa ñuy tudd alxaysuum xaysuum mooy yaxu bakken gi ci biir fii moo tudd alxaysuum amaliyatul na foofu lay jóge moo tax kiy jàng ba agsi ci gunna bu bàyyee xel dina yëg ni eh, gémmiñam li ko tàmbale ciy tuñam ak ki làmmañam ba ca put fii xaraf iji di génn yëpp yëpp dañuy taxaw kii jàng ci misaal ba naan in jamono bi mu naan gémmiñam dañuy tekk ndax liggéey boobu dub liggéeyam génn na ko moom liggéey boobu liggéeyu ba kenn la yaxu kaw ba kenn alxay suum am ci xarafi idgham yooyu yoo xam ni bu ñu ci idghamee nun gu sukun wala ñu idgham ci tanwin day ànd ak gunna waaye am ci yoo xam ne du ànd ak gunna moo tax mu ne xismaani xism bu ñëk bi moy bi nga xamni dañuy idgham mu ànd ak xunna na ulima xameef nako bi yanmu ci harfi yanmu harfi nek ci batu yanmu harfi yanmu da ngay gis ni ñoom ñëpp fekkon nga len ci yarmaluna kon yarmaluuna buñ leen boole ñom ñëpp ñoy huruful idgham waye buñ ci genné ñeenti harfi yanmu ñoy huruful idgham bi xunna ndax neena dafa ñaar yo xam da ngay idgham mu ànd ak gunna ñu tudde ko idgham bi gunnatin ak yoo xam ne dangay ngay idgham te du ànd ak ñu tudde ko idgham bi ghayri gunna kon yi ngay idgham mu ànd ak ay xarafam mooy xaraf yan mu xaraf yooyu di yaa nuun miim waaw fu ñu toppe ci nuun gu sukun nuun gi dañ koy idgham ci biir xaraf yooyu mu andagunna fuñu topé ci tanwin kadalik dañ koy idgham mu andagunna buñ ci joxe misal yu gaaw lu melni ya dañu gis ni fa man yaamal fa man yaamal nuunug man fa man nuun gi da ko idgham da ko duggal ci bir ya u ya'mal ba pare shadda yaa gi kon bo bindon li nga jàng fekkoon li nga deg nga bind mbind mi du am nun ginnaaw bu jógee ci miimuk faman yaagu sat da nga teg ndax danga ngaa idgham kadalika bu dee tanwin comme wa barqun yajaluuna wa barqun yajaluuna qunya tanwinu qaaf gi da nga koo idgham ci yaagi kadalika bu dee nuunit noonu lu mel ni min ni'ma min ni'ma nuun gu njëkk goo gi da nga koy idgham ci nuun gu ñaareel gi nuun ngi njëkk ji nekk ci min te sukun da nga koy idgham ci nuunuk ñaareel gi bu dee tanwin tamit kadalik bu ci nuun toppee comme amanatan nuasa amanatan nuasa tanwin gi ci tan dañ koy idgham ci nuunuk nuasan bu dee mim kadalik lu mel ni mimma lillah mimma lillah nuunuk min da nga koy idgham ci mimu maali moo tax li nga dégg daanaka boo ko doon bind miim du ci am miim ngay bind ak geneen miim gu shadda xëcc ko indi laam ana nuun nga da nga koo ci biir miim gi kadhalika bu dee tanwin lu mel ni ayatim bayinat wala ayatim mubayinat ayatim mubayinat tanwinu tin da nga koy idgham ci biir miimuk mubayinat bu dee waawit noonu bu ci nun toppee da nga koy lu mel ni miwaal bu ko mim jiitoo kon bu fekkee ne tamit eh, tanwin a ko jiitu da ngay idgham tanwin gi ci biir waaw gi lu mel ni ghishawatun wa lahum ghishawatun wa lahum ma googu ci ghishawatun da nga koy idgham ci waawu wa lahum lu tax mooy waaw xarf idgham waaye boo seetloo ca yaaga nuun miim gi ak waaw gi yëpp idgham nañ na am waaye daf ànd ak gunna ndax xaraf yooyu ci xuruful idgham di ñeent yi dañuy ànd ak gunna moo tax mu ne lakinnaha qismaani qismun yudghama fihi bi gunnatin bi moo ulima am na geneen leeral gu ci topp ci charte bi nga xam ne bu ci manqué deesu ko deesu ko deesu ko euh, idghamati incha allah loolu dañ ko jàppale it ba suñu jotaay bii di ñëw ndax suñu wax dafa jeex tàkk-tàkk incha allah suñu jotaay bii di ñëw dinañ ko leeral doog ñëw ci xaaj bi nga xam ni dañuy idgham te duñu gunna eh, seen jotaay la woon warattilil qur'ana tartila ngeen àndoon ceeg seen bokk Abou Taha di ko toppe incha allah ci ahlul quran point com wala ci compte youtube lu mel ni ahlul quran wala eh, la maison du coran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله رتل القرآن ترتيلا